suñu mbokk internet bi yaa ngi ci Warkha TV soo bañee suñuy théâtre reportage divertissement wala actualité di la raw da ngay daal di abonné ci chaîne bi daal di cliquer ci cloche de notification bi su ko defee nag daal di toog lépp lu ñu dugalee di nga njëkk see jot ndax Warkha TV mooy la chaîne qui nous rapproche asalaamaaleykum mbokk internetu Warkha TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen a ngi ci seen émission conseil santé tey nag maa ngi leen indi lu ñuy woowe cornichon cornichon nag mi ngi bokk ci famille boobu ñuy woowee les cucurbitacées variété concombre la mais moom dañ koy wut ci avant muy màgg moom nag am na ay ferñeent yu nekk ci biir lu ci mel ni am na vitamine B C ak K am na lipide am protéine am glucide am manganèse am na cuivre am fer am iode